Uh... waan bikum mbàndum bu njëkk génnee nañu ko ci pétrolu Sénégal bi alhamdulillahi ba tax yéene kaayu tey fa ñoo xëy di ñu ko xamal bokk na ca teral yéene kaay fa wax na bës bu rëy histoire fa koy bind mooy na barigo pétrole bu njëkk fañ ko wàq génnee ko ci pétrolu Sénégal ba nekk ca géej ga muy Sangomar ba Vox Populi ne bés ni ki démb léegi réewum Sénégal bokk na ci réew yi nga xam ne fa ñuy wàq pétrole ba pare di ko jaay bitim réew bés na mbànd pétrolam bu njëkk li ni mel nag nekk yooxu mbégte yaakaar bu njëkk njiit réew mi Basiru Jomaay Fay fa dalal xelu doomu réewum Sénégal yu tey ak yi di ñëw ci seen ëllëg ci njëriñu pétrole bi Le Soleil yéen a ne moom kay fa wax lu leer njiit réew mi Basiru Jomaay Fay fa wax na xaalisu pétrole bi fañ koy delloo ci askan wi saafara jafe-jafe yi suqali réew mi ca réew mi yéen a fay leer naññ fañ koy dugal la cay génn ñaata la fay leer de ndax waxoon naa leen ko réew mi fi mu nii jub jubal jubbanti rek Le Quotidien yéen a juddu ah Sénégal fi mu toll nii bu tàmbalee di jaay pétrole loolu kay réew mi mën na fee doxee suqaliku suñu wàllu koom-koom ñu ci am xaalis bu bari kaay na ko voilà xaalis bu bëri boobu laa lay wax ñaata lay si Sénégal di xam at bu yàlla sàkk ñetti téeméeri milliards mën nañ ko cee am bés bi yéen kaay na ko faa lay wax bët bu set Sénégal ñaata bari ko pétrole lay mën a génnee dem jaay ko bitim réew cent mille barigo par bés loolu baax na entreprise kër gi nga xam ne nag ñoo jël seen xaalis wàqi pétrole ak seeni machine ak jumtuwaay ba mu génn ñu ngi koy wax Woodside kilifa ya jiite Woodside googu fa ñoo wax ne liñ dugal ci liggéey bi yëpp ba pétrole bi tàmbaree waree génn mi ngi diggante neuf ba cinq milliards dollars kaay bi ne lii a jaaxal nag président Diomaye Faye mooy négocier waat contrat pétrole bi ak gaz bi loolu kaala de xam nga fa ñoo seetlu ne Sénégal pétrole bi buñ ko wàqee luñ ca jaay la ca gën a tubaab yi wàq pétrole bi ñoo ko moom léegi nag fexe nag am ci pourcentage bu bëri loolu mooy kaa bi fi mu du yomb de Biram Diouf xam-xam màcc ci wàll wi ca source a ne hée faa bëgg ngeen def ndànk nag xamante ñoo jël seen i ba wàq pétrole bu mu génn te mooy tubaab yi faa bëgg loolu leer de l' observateur na ko ma nit faay leeral Sénégal yi mboolem rëq-rëq yu mës am ci wàqim pétrole bi ci Sénégal biñ ko tàmbalee càmbar boobaak léegi mat na ñaar fukki at ak risque yi nga xam ne fa nekk ci buñ bëggee négocier waat yi buñ bàyyee xel li fi xewoon ci mbiru ArcelorMittal yi point acte yéen kaay na leen ak lu ci mënti doon daal Sénégal mbay wàllu jàmm ak dal ci réew mi ndax bëri na réew yoo xam ne ba fa pétrole ba feeñee fitna ak xeexoo rayante la jur ci réew ma rawatina fii Afrique ngir ñu moytu loolu nag yàlla bu mu dal Sénégal mooy nañ fexe ba pétrole bi lañ cay xam na leer fañ koy dugal mu leer te na dem ci askan wi bu ko ñenn ñi jël ko këlamti ko libération ni ëllëgu Sénégal daal gu mucc ayib koom-koom moom suqaliku fi mu ni fañ ko yaakaar ci pétrole bi ak gaz bi te jeex a gudde am na la de fañ ñu ko lebal tubaab yi jaara ko ca Europe bon ak waa FMI weeru soulier bii fañ ñu jox ay milliards xabal ñu ko leer laneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne journaliste yi fa ñoo war a xolaat seen doxalin Adama Gaye di ab journaliste moo ko wax ci tribune yéen a la mu waxoon nag moom Ousmane Sonko njiital Pastef jëm ci bale jëlee fi attekat yi nga xam ne la yàlla xam doy na andi fi attekat yu jub direct moom fa laajte ne UMS muy mbootaayu attekat yi Sénégal yi lan moo tax fa ñoo noppi ne tekk tontuwuñu Ousmane Sonko laas yéen a kaay mel ni ko ne ko ndax yàlla nga sañ koo laaj jaaxle man UMS fa ñu muuma te ñaare ku waxaan ci attekat rek ñu génne ab bataaxal di ko ñaawlu la mu ñaawlu moom Ousmane Sonko ci doxalinu Prodac diggante moom Mame Mbaye Niang bañ tere ko nekk candidat te loxoy kenn ci attekat jugut ca critique yéen kaay ne mbaadu tay nag fi mu nii Sonko fa sulliwaat dossier Prodac bi diggante moom Mame Mbaye Niang ba lépp ngir fayantoo tooñ gañ ko tegoon révélation yéen kaay moom fa ñoo xamal ne Nafissatou wax ñu delloo si ko am ñoo xam ne delloo nañ xam ñoo xam ne fa ñoo bañ a delloo léegi nag état bi fa leen di lukkat ngir nangu oto yi na fi sa tumi fa caa xam kaa ña am kaa dëgg nag mooy askanu ndakaaru fa bëri quartier yoo xam ne fi mu ni xamuñ ndox muñ naan robinet fa coupé tëj karak révélation yéen kaay ne lu ji njaaga nag seen au mooy njaag exclusif yéen kaay